ñu gën ko xam ci Serigne Cissé mu Serigne Babacar di suñu xarit di suñu soppe macha allah waaye di suñu wëllare tamit di suñu mbokkum taala ñu namoon ko loolu tamit ba tax tey ñu tataan si waat ay kàddoom lenn ci xam-xam ci li fi suñu borom def ak tey ci tolluwaayu réew mi ngir bëgg koo waxtaanee ak askan wi kon su ko defee sëñ Cissé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la dalal ci sa biir plateau macha allah rabbi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim malik yawmi din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 ناصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون bokk yu baax yi waxtu wi ñu toll tembe ndeysaan mboolem koo xam ne yaa ngi bàyyi xel seen place noo ngi lay nuyu bu baax di la siyaara di la jox sa cër di la jox sa wàccuwaay bi la yàlla jox kenn ku ne fa nga toog sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar fekk na la fa nga toog na la jàpp loxo di la jox loxo xolam te naan la asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala Cheikh taala Cheikh Mouhamadul Bachir ci jërëjëf Serigne Cissé mhm. na la mhm. moo tax ma topp si waat la tey bëgg a waxtaane wax ak tuuti ci actualité waaye bokk na ci tam ci wàllu yi nga xamante ne yéen a ngi ciy yëngu mhm. tey bi may fi may tàmbalee rek bu ma ne woon Serigne Cissé lan mooy melob Serigne bi mën a ñaanal doomu aadama bàyyi mbiram di jàppandi melo Serigne premièrement bi ci njëkk mooy ne ndax Serigne la bal la bu yomb waaye am na jikko yoo war a nekk ci sëriñ ba ku ko gis ci sëriñ xam ne kële sëriñ la ba mu mooy solu toog ne sëriñ laa muy premièrement sëriñ du fen lu manu nayem ce ne manuma ko sëriñ war naa dundee lu ko lew ba bu ne allahuma buur yàlla dégg ko sëriñ war naa wax lu yoonam nekk bañ a wax lu yoonam nekkul waaye yii cadre nag yi nga xam ne dàqu na yom nga jël ko ñoddi ko ci sa bopp mhm. kooko bu xasee nekk ci yow la dàqu bu ñëwee ci yow mhm. la ngay woote nekkul ci yow kon da jël tur rek teg ko ci sa kanam mhm. waaye matière ba gën ca sëriñ nekkul ca yow sëriñ dafa war a sell sëriñ dafa war a set sëriñ dafa war a màndu sëriñ dafa war a gàtt tànk sëriñ dafa war a xam moom mooy kan avant tout bu ko defee incha allah dana waral nag lay la ñuy la ñuy xool ci sëriñ gis ko ca moom di tere lu bon di digle lu baax mhm. waaye doo tee lu bon doo def lu baax bëgg a woote sa bopp ab sëriñ këriñ nga waaye doo sëriñ këriñ waaye mhm. waaye nga waaye doo sëriñ Cheikh Talla macha allah jërëjëf Serigne Cissé mu Serigne Babacar ci leeral boo am solo boobu mhm. bokk na ci tamit fi mu ne li tax ma indication boobu tey ji mooy tey ji euh, fi réew mi toll nit ñi. Mm-hmm. dafa mel ni amatuñu toppatuñu kenn ci wàllu kilifteef. Mm-hmm. waaye ku ne dafa demee ak sago boppam. Mm-hmm. te buñ ko xoolee tey ji ay détournement ñoo ko indi ci biir réew mi. muy façon secte bu ne di fi woote. kenn ku ne di woote réew mi kenn ku nekk bu la neexee nga jog woote sa pour autant jóg koo tëralal. Cheikh Talla moom Cheikhul Khadim. man Serigne Cissé mu Serigne kar wax naa ne. fi jamono toll ci Sénégal. koo fi dégg moo wax wax joo xam ne boo ko déggee yow taala da ngay dat sa gémmañ mhm. wala Cheikh Mouhamadul Basir dégg ko dat gémmañam mhm. jàppal ne jëmm joojee wax loolee mhm. saytaane dugg na ko te ku jara defal ñaan la gis nga nag damay abbu wax yi Serigne Moussa Ka ndeysaan Serigne Moussa moo daan wax ne am kilifaay li am solo boo ko amee am nga solo ndeysaan amul amoo solo waaye ku wéeruwul day neex a ba max sëñ Mbay Jaxate sëñ Mbay Jaxate moo daan wax loola mm-hmm. sëñ Mbay Jaxate mooma mm-hmm. daan wax loola daa tënk woon ci yoon mm-hmm. tënku ci kilifteef ndax nit ki boo bëggee doon dara dangay am fooy teg sa tànk waaye nag mag ñi dañuy wax ne ku kër gi yarut mbedd mi yar la jamono nag dem na ba ba kenn ku ne ne damay bëgg a doon sama kilifaak bopp mhm. bay taxaw ci doxalin woo xam ne ka koy déggee boo ko nawoon sax dootoo ko naw seex Talla mhm. waaw waaw macha allah parce que jamono dafa jaxasoo sëñ Cissé jaxasoowu ndànk parce que tey ji buñ ko xoolee tey ci kaw ku ci mel ni fi mu ne daanaka borom ñaari tur yi ñuy wax mhm. problème bi am ci diggante Pape Mbaye ak euh, euh, euh, Saneex tey buñ la ci laajee tey ji ban ban ban gis-gis nga ci am nag loo noo ko xalaatee ak tey lan la ci diine wax. Cheikh Talla bu dee mbir moo xam ne da koy tudd rek yàlla rëbbu la. Mhm. waxumalaa nga fréquenté ko. Mhm. tudd yàlla rëbbu la mu fréquenté yàlla rëbbu la nga may ko yàlla rëbbu la nga xool ko yàlla rëbbu la nga tudd ko yàlla rëbbu la tëj ci sa gémmiñ rek a jaadu. Mhm. waaye dafa am loo xam ne dañ koo bëgg a favoriser si ci Sénégal gii. te amut fi place. muy affaire da góor jigéen. amu fi place. Mhm. jeunesse bi léegi nga gis ko ku fi doxalinu doxinu góor doxinu Baay Faal. Mhm. jafe na. dangay xool nit mu def benn doxalin wala yenn sess yoo xam ne dalay jaaxal. Mhm. waaye nag ñoo ngi ñaan yàlla yàlla bu ñu ca yàlla buñ ca bokk yàlla bu ca sunu njaboot bokk. amiin yaa rabbal aalamiin. waaye daal la ca mën a am mooy ne. koo ko gisee mu nekk ca. ñaanal ko yàlla buur laaw soppi ko. waaye yenn façon yi ma gis mu jamono ji seytaane dugg na ñu baree bëri ba indil leen ci beneen jamono boo xam ne hmm. du la gënal du ma gënal hmm. te boo ci doon wax pour defar la nga cee dégg du la gënal du gënal ña nga bokk ak hmm. moo tax yi fi xaw a doy waar waaye anam bii ñu gis lii doxul moomuñu ko nañ jël li ñu moom te bàyyi ñeneen ña la ñu moom Cheikh Talla mu am solo loolu waaye wax nga ko léegi def man bu ma xamee Serigne Cissé. Mhm. xam ko ci dëggu. Mhm. dëggu ki itam weesu wut mooy. Mhm. li ci diine wax. mooy doon kàddu yu dëgg gi. parce lu ci waay mën a wax. mën na doon sa xalaat sa sa gis-gis. sa tolluwaay. waaye diine ji nga xam ne suñu borom moo ko moom. alxuraan la mu ca wax. ci seenub àtte ñoom. nu mu demee. sa seenub àtte li ma la wax rek ki nga xam ne yow tey da nga ko ne am yàlla nga la cay rëbb. ku yàlla rëbb foo jëm. ki nga xam ne da ko xas na ko am. Mhm. may ma mu may la yàlla rëbb la ca foo jëm. asamaa ah, ak moom mi may. ak moom mi la may. Mhm. kon yow ñetti façon yooyu nga boole ko foo jëm ak moom. yooyu yëpp nag nga ko def yàlla toppale la ci rëbb ba yàlla jéppi la. Mhm. loola la cay gën mooy ne. tëj sa làmmañ te bañ a jëflanteeg moom sax bay tuddul tur wa bul jege bul laal ba ko tur wa sax tudd ko erreur la. ci yàlla jéggal waaye nag bii duñ ci am bàkkaar mm-hmm. ndax li tax du ci am bàkkaar mm-hmm. da nga caa laaj ca diggante laaj ak tontu la mm-hmm. suwaal ak jawaab la mënta ñàkk ndax fi mu ne mënta ñàkk kaddu gi may wax laajee du sama jëmma ji mooy laaj ñi bëgg a xam ak ñi toog ci ginnaaw bëgg a laaj te mënuñoo yegg si ba laaj ñu yebal sëñ taala na ko sëriñ Cissé mu Seydi Aboubacar si faaw ma laaj faaw ma gëstu comme li ma la ci wax nii la rek ci mhm. ndax boo ko ca defee lii ma wax la dina la ca daal yàlla rëbb na la ci loolu maa la ca wax jërëjëf sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar kon dama naan est-ce ak yàlla suñu borom subhanahu wa fonk gi mu mhm. ba tax mu ni mooy représentant ci kaw suuf mhm. wala xadd karam naa bànni aadama es ce que nit ñi kon tey ñoom xam nañ seen cër ci yàlla te parce que defe naa nit bu xamul yàlla du mën a xam cëram di ko yàlla cëraleen damay faral di wax ci senegal ne xaj na sëñ Talla. Mhm. mën naa doon Serigne Cissé. Mhm. Serigne Cissé du xam sëñ taala mooy kan waaye mhm. sëñ Talla moom na xam ki mu doon. foofu la jamono toll. waaye nag fi réew mi toll. ak ci li ma laaj nii. ñu bëri dañoo xamatu seen cër bay xam yàlla. nit ki boo xamul sa cër da dëkk di waxi ay deli rek waaye gis nga boo xamee ki nga doon xam kan mooy yàlla mi la mi wàcc ci juuf suuf yenn defi nu ñaawteef yii doo ko jege sax ba koy dundaloo nit kon yii ngay wax nii dafa si bari ñoo xam ne sëñ taala dañoo aajowoo ñaan nit ki nag boo xamee yàlla da koy jéem a jaamu boo ko xamul nag leneen ngay jéem a nekk ñu nekk ci li ñu nekk xamuñ yàlla mhm. buñ xamoon yàlla danañ jéem a nekk ci yàlla ji yàllaal ko waaye ñeneen ña la ñu nekk loola lañ xam mhm. fa tabaarakallaahu <laughs> jërëjëf Serigne Cissé mu Serigne Babacar mhm. aka dégg wolof nee na ma <laughs> waaye yàlla baax na loola démb la tubaarkàlla macha allah bokk na ci ni ko waxee léegi dañu gis sax ci ñu biir réew mi tey ji jabarkat yi ñoo fi ëpp doole ba pare fi ne nit ñi daal di leen gëm gu toll nii ba pare kilifa dina yi ne fi te kenn àdduwu ci wax ci fi mu toll nii njabeer tey la man a lijjanti waaye mëntu lijjanti suba. njabeer. tey lay lijjanti du lijjanti suba. mën na la may añ léegi nag añ añ boo xam ne dana riis lool waaye boo xëyee doo ndékki. ci yàlla lii la njabeer di dox ak nit njabeer. mën naa def sëñ taala tey léegi benn millionnaire ginnaaw suba nga ne kanaa du taalaa yoroon millions lii de mooy njëriñu njabeer. kon loolu du dëgg pourquoi léegi nit ñi fo focaliser ko dem ci. sénégalais. li koy tiital lay def deug li simple ta legal tegu ci yoon nekk xam bu wér defa ne waja ta te xay deug ba bo sax boo gisee fi ne ko waxal mu la fi ne alxuraan gaawut a xamul njëriñu alxuraan <laughs> alquran boo ko xamee xam lan moy alquran mhm. ben basmala day fay téeméeri jangoro yu bokut wallahi lazim ben basmala ayatul kursi yu wax naa ko tey ci gox bii ma nekk bu ma ci jàngoon benn ar naa gox bi yëpp allahu la yastaxlifannahum laa ilaha la yastaxlifannahum ilaahu wala yastaxlifannahum mboolem jàngoro joo mën a amee ci àdduna bu ko fa alxuraan fekkee raxas ko kon njabeer gi ñu fubarisee luy njabeer du dara yëfu jinne la bëgg lu la ëlëm ma fexe butéel bi ma fexe ba dugal ci nen nga daan waa sëriñ bi nu def ba dugal lii yooyu du xam-xam xam nga lan mooy xam-xam Cheikh Talla mooy fekk Cheikh Mouhamadul Basir ci biir kër gi Cheikh Mouhamadul Basir nekk faak rakk rakk ja loxoom jote ginnaaw Basir mi mag ji loxoom jotewul ginnaawam bokk bokkutoon ci course bi nga fexe ba boole ko ci course bi lii mooy baatin xaqiqa dafa gën a wér lu dul yeneen yii kon yeneen yi ñu bëgg a jël di ko favoriser teg ko ci réew mi te amul fi place hmm. moo waral ñu baree bari di découragé man na la woon benn pas-pas léegi ci sa jëmm ji hmm. sëñ Talla dem indi Cheikh Mouhamadul Basir looloo du mën a amaat ndax lu ñuy triché la tricage la maanaam du film bu wér hmm. te defe naa mbir mi li wér moo gën li wérut laa ku kon lii dafa gën a wéer leneen lu dul moom boo gisee ñeneen ñi ngi fi dégg ñu sampoon daara ba léegi seen tur fayu li ñu yor a wér waaye ay njabeer ak yii du dara du tus ku koy ngéejoo xamal ne nekkul ci dara mhm. ak ka ca ak ñoom ñëpp nag léegi ki ñu ki ki njabar jàpp fi mu toll nii est-ce que seen Cissé mën na koo dimbali ba mu génn ci situation boobu déggoo li ma la rabal mhm. nañ la sànni korte mhm. nañ la liggéey ba nga toog liggéey la ba nga tetteerlu tëdd say mbokk amantu ci yow yaakaar mhm. kursi yoo ngoog ma rabb ko na ma koy rabbee boo ko naanee boo taxawul lu siise waxati na ko waxula dëgg man dama lay wax lu wér te du ma génn alxuraan mhm. loo xam ne secret yoo xam ne boo ko jëfandikoo lu la mën a dal day wér moo xam kortoog lu mu mën a doon ci àdduna da ngay wér peleg mhm. te ku la ko jéem a sànne te dana mel ni balu teg si ci miir Kara du maa ko wax man Serigne Cissé. Mm-hmm. damay wax tey wax suba. Mm-hmm. te ci xam-xam laay bâché wu. Mm-hmm. du ma wax ci waxi yaama neex ak waxi falaa falaa samay de la vie ci àdduna. ndeysaan. Faatiha ayatul kursi yi lixlaas falaa xeeg naa salaatul faati. Mm. ak la nga cay dëxëy. <laughs> tubarkalla. rab la jàpp. ñu boole ko ngeer ak yemi ànd ak. rab da lay ba bu doon la yàqal dootu la yàqal. Serigne Cissé ngay wax ak te alquran laa lay tegal kenn du moom. yeneen yi ñu fi teg yëpp gars yi ay euh, euh, font rek lañ ne newuñ ci dara amul solo amul solo newuñ ci dara amul solo xam-xam ku ci bëgg a jëriñ nit ñi da ngay fexe topp njëriñul xam-xam bu dee yow sunguf nga yaakaar sax na nga tarbiyu ci sunguf ba xam lan mooy njëriñal sunguf mm-hmm. sëñ Talla tey bu ma soxla woon ci yow dara mm-hmm. dana am lu ma la baabe ba am ci yow dëgg yàlla bu doon ren bi nga soxla lax ci garab gi boo demee am na noo war a def ak moom ba am garab ga boo ci defee mu jur njëriñ lu ci ne buntu la buntu la booy jaar waaye yaa ma neex jee kaalawu toggee bari ta xamuñ dara xamuñu dara. moo tax dóorkat yi bëri fi mu toll nii gars yi xamuñu dara dañ lay nekk di interview ba mu neex leen sax ñu sol mbubu toog xamuñu dara nanu jàngi. ndeysaan. yëf yi boo ko amul na la jaral nga dugg ci àll bi dem jàng ji tarbi yoo xam-xam mën a dimbale jaam ñi. Mm-hmm. ayo bismillah noo gisee léegi tey sëriñ si nga xam ne ñi ngi jóg di dem ci seen moromi sëriñ yi te bu ñuy dem dañuy nëbbatu duñu wane ni si ay sëriñ lañ di seetlu jeeg di def yu mel na xamuñ dara ñàkk xam dara la rek nit ki xam lépp sax amul dëgg xam lépp mhm. amul fenn wallaay ndeysaan waaye nit ki da ngay am commencement ñu yeggal la waaye amula premier amula deuxième mhm. bëgg na yaay quatrième foo ko teg yow fa nga toog yow mi wax wax ji yaa njëkk a xam ne fen nga avant ñi lay déglu xam ne lii nga wax da ngay wax wax ju la neex rek la ci dara xamewoo nan la ñu war a daggee xaatimu musalas xamula ko mu rabaa xamoo ko mu xamas xamoo ko ah yow xamoo ci yooyu yëpp benn bëgg a taxawal sa bopp ne ab sëriñ nga te damm da damm xaatim moom dégg na yàq xaatim moom xaatim bu wéru sax nga yor ko ci sa kër da indil problème yow sëriñ bi dajale say kayfiyaa teg am na sa xaatim goo xam ne xamula la mu doon yow da lay indil problème gis nga musalas li tax mu doy waar tey boo daggoon musalas fii danaan la musalas bi bu dee sëñ euh, sëñ taala nga bëgg maanaam mu nangul la ci biir musalas gi musalas gi moo lay wax ne lii dañ koy aj wala dañ koy teg ci suuf sëñ taala ku ñuy aj la wala ku ñuy teg ci suuf la musalas doo ko mën a dagg doo ko mën a dagg dagg normal ba pare di raté la ngay wut amut ci àdduna amul bal perdu moom non non non te alxuraan lenn du moom. Mhm. moo tax bu ma déggee kuraan alxuraan efficace wul dama naan ko yow yaa efficace wul. moo moo ña koy xalaat ñëpp kay. ak ña ko wax gis nga nit loo gëmul du la jëriñ. Mhm. man toujours nit woo ma ma ne la gis nga li ngay def nii boo ci amul confiance coupeel sa crédit nga seeti keneen koo woo. boo déggee man neexumaa ñaan loo man Serigne Seye mu Serigne Babacar yenn yi la dafa am ñoo xam ne nag dañuy tirise yow nga tegal la buñ la tegaloon alfu bu yoon yow xamoo alfu bu yoon nan lañ ko war nan lañ ko war a wàccee xamoo ko. bëgg woote sa bopp ab sëriñ lan nga doon caaxaan kat rek. ak mbu bàyyi. gis nga sëriñ si yéen ñaar nekk sëriñ si da lay oto sëriñ si da ngi tabax këram sëriñ si ñaa ngi këram tey nga xëy ne da ngay kaalu. tey ci semaine bii mën ngaa togg añ waaye beneen semaine ba doo togg ndax doo dugal benn bii xam-xam day mais noo def ak na nga daan def ak gars yi fi mu ne woote téléphone rek nga ne ko yeewa diw. ba léegi sëñ Talla <laughs> damay faral di wax ne Cheikh Bass. jàng baax na doon mhm. doonnu baax na doon mhm. doonnu wér na waaye boo jàngee li ca mu gën a wér mhm. jagle yi tamit am na jagle am na yàlla mooy seet fatu rek defal ko nit seex taala toll fa mu mën a tollu ne allo Serigne Cissé Serigne Cissé ne ko anam bii ak bii ngay def am jàmm te loola nag la koy dimbalee nit duwut alawa juñ naan bàqar ba minal jinnati suñ borom ba koy jagleel jaam nga tëdd fii guddi benn balaa war a wàcc ci réew mi yàlla wan la ko nga xam ko nit mën naa tëdd sax sëñ taala xëy gént basir waaye maanaam jëmmi basir dana am lu mu ko taxawee waaye sëñ taala du xam tarjumaan ji lan la mm-hmm. code ba code bi day ñëw waaye dana manqué benn chiffre nan lay def na ba indi chiffre bi koy matali kenn du sama waaja kon yëfi da nga koy xam boko xamone li wax xam xam xawma bokku ja fexel waxtane njeriñul xam xam mhm. bo mëntu waxtane njeriñul xam xam na nga tok te ci gemma gi te baña sonal nit ñi mhm. waxi tiaxaan ye ya bari ci rew mi mhm. dama koy faral di wax bokoy wax ne yeen internet yi kenn ëppul leen problème ndax ku ngeen fi jël mu dem def fi lo xamni du jëfëdu nit yeen lañuy wo yeen ñuko duggal kon ku mëntu waxtane xam xam señ taala na ngeen ci am matu way gu ma sekk bu leen kërëm ndax foofu la réew mi toll. muy Serigne Cissé muy keneen. niveau bi moo moo dépassé ay mën naa lii mën naa lii. mën naa lii dafa yomb sëñ Talla. non niveau bi moo ko dépassé parce que. da koo dépassé nit ñi dañoo sonn mag mm-hmm. man naa. li Cheikh Ibrahima da wax. Mm-hmm. buñ doon buñ nee ba ta ba ba jëf taxaw. Mm-hmm. wax amatul fa place. ndax nee naa fu ñu fayee wax bàyyi jëf. mu ngoog jërëjëf mm-hmm. aywa tubaarkàlla jërëjëf Serigne Cissé dama damaa namoon loolu ndax bu yàgg dama dañ ko daan dundandoo mu neexoon lool ci jamono ba ñuy ne ca bande FM ba mm-hmm. mu doonoon lu yu mucc ayib mm-hmm. waaw nga xam ne bu ñu toogaantee technique bi sax day day neex ndax dafa pelloo goo xam ne dañ ko daan def te wax dëgg yàlla dañ doon déglu doomu aadama yi doon woote kenn ku ci ne ñu bëri ñëw fa teewlu jaar si fa ñu fekkee ci yow lu bari. parce que tey jii naa relation bi bu demee ba am ba yegg si fii foofa sax la tàmbalee ndax dañ fa nekk ndawoon ñu la ngeen daan def ci biir fa ñu ne woon mhm. résultat ya ngeen ci doon am ndax dara mosuñoo umbu ci biir mhm. bokk na ci li tax ñu am confiance ak yaakaar ak qualité ak crédibilité mhm. ba tax mooy crédibilité bi mooy bi ngay wax tey à travers ñu ci bëri bëri gars yu ci bëri bëri xëy na am wecc bi moo leen intéressé mais non jamono ji moo toll foo xam ne crédibilité lañ soxla mooy nit kuy wax lu wér di wax dëgg loolu la nit ñi soxla parce que nit ñi dootuñu ay dof te dañoo sonn Cheikh Talla defe naa ne fi mu toll sàmmagam bopp nga te dara jaralu la ci àdduna ngay ñëw di waxal ni loo xamut ak loo gisut hmm. yow defe naa ne du benn du ñaar nga assisté nit nit waa la ci sa téléphone bopp ni la hmm. Serigne Cissé nangam barki Cheikhouna Ahmadoul Khadim yow ci sa jëmmi bopp nga ne ma Serigne Cissé nangul kenn ku ne am na lu ko yàlla de dogal ci jëmmam ja hmm. ni si la war a jaamoo yàlla kàddu gi yow ma daan wax waaye ñun dimbale nañ façon bu ne taxaw naa nii la ak naa sax sax mhm. nu ndax sénégalais yi xam nañ kan mooy Serigne Cissé mu Serigne Babacar lii lu ñu fekkee la lu ñu dund la quoi yow dund ko koog ñun def nañu nga fekkee mhm. wax nañ nga dégg jëf nañ nga gis mhm. kon li mën a am mooy caaxaankat yi waxu seen waxi caaxaan we nañ ko téye ku ci xamul na nga dem jàngi in antanem xamoo demal nga laaj ci ñu xam ñu xamal la wax dëgg yàlla muy dëgg am na solo barki sëñ Tuubaa te noonu la demee daal bokk na ci fi mu ne pot yi moom dafa dafa mel ni euh, dafa dafa dafa manqué wala nu mu dem. lii mënuma cee liggéey lu doy. ndax réew mi dafa am man ay dix pot laay gis fii te loo xam ne da doon ñëw fekk kër gi yëpp doon ay pot. ma fekk ko yenu dafa am ñu gane jamono ñàkk xorom ci réew mi kenn soppul leen fuñ jaar ñi kiibatu leen. ak ñi ñi ne rabaleen jàpp. nga ne ñi juddu. xam nga sëñ man xam nga li tax man yàlla daf ma xoromal. walaay ndeysaan. xorom gam ma xoromal. mooy waral sama baati nit ñi duñ ko mën a xam. ndax wax jaay saf xorom lool. dafa am ñu gane jamono ñàkk ko xorom lool ba luñ wax kenn du leen defoo. ñaareel ba. Mm-hmm. ñi nga xam ne mënuñoo fexe ba am dara. Mm. ñi nga xam ne mënatunoo sangu te bëgg nañ nit ñi sopp leen diw gi baax na ci ñoom. diw. diw la di. diw yaram Sëñ Talla bokk ma yi diw yaram. Cheikh Talla. non il faut ma comprendre quoi. bu nit ñi di nelaw. Ah. man xam-xamam may tax a toog. defe naa ne bi nga dalee ñëw sa kër ba léegi yaa ngi doog gis sama der bii. Mhm. te bi fi ñëwit nag tey la. waaw dama laa xam rek moo tax ma natt leneen rek. bu ko defee lii. Mhm. bu dee yow da am problème mu sangoo ay garab. Mhm. liñ ko mooñaale ci ay turu yàlla ba def ko kerem boo xam ne boo ko doon diwoo dama ko fi jox sama benn mbokk sëriñ. Mhm. mu ne ma sëñ si sa mbaam sa diw bi day leeral ma ne ko loo ci xalaat ca. Ah. loo ci xalaat rek lu ko raw nga ca. mu ne muy génn nit ñi naan ku lay diwoo coow li bari ma ko diw li lim ànd ak nit mënoon la ko wax kon yow xanaa moom nga testé woon parce que jamono yi la ci ginnaaw sëñ bi leeroon nga fi tam leer goo xam ne ba nit ñi naan <laughs> boo xam ne nu ma meex mel ko ci kanamu doomu aadama yi ah, kon ko defee sëñ Talla mhm, képp ku ko ci yittewoo daal boo ko amee raw say morom mais ana daan moom nga xam ne ñoom ballonnement de ventre ñoom góor gu xaw ñu ngi ñu ngi ngi fii <laughs> ku ci sa ngóor a manqué sa ja kër jabar di la wokkoo hmm. naan la sa tubay ju réy ji daagu rek nga fi nee ci kër gi kaay seet si ma <laughs> mag sëñ Talla réew mi ñëpp war a bokk di ma ñaanal ma yàgg fi te wér réew mi yëpp nag am naa waajoo xam dina la woo nga jox ko ci bu ñëwee daal doo doo ko réccu ba nga koy jox moom def ko addi ko ko jeex na tàkk non loolu moom xam naa ci mu def ko ko mhm. ndax heure bu ma duggee gàddu dara yóbbaale mu a man di taala li muy jël xaw ma lu mu koy dee te dara ma ci mais tabaarkàlla man ñàkk maa xam ci réew mi wóorul ndax dafa bëri njëriñ eh. man damay dog dugg àllub saalum mhm. àllub saalum bii mag moo fi dégg ñu lay waxtaane ci wàllu xam-xam ma sukk ci sa roon fexe ba siru ba nga jox ma ko ma liggéey ko ngir jaamu yàlla di <laughs> koy ndongo daara waaw mhm. waaye wàllum kattan ak fi fees fi dell ku ci amul kattan boo ñëwee ma jox la kattan macha allah ku ci xam ne sa kii bi duy jóg boo ñëwee ma jox lu koy jógal mhm. wax jee xoromu nag xam-xam day leer kon yéen ñi bëgg njëriñul xam-xam ci walu côté ngoro amna fi. mën naa yokk wala mën naa. lool. kon ma sa la koo yokk. sëñ Talla lenn li boko waxé sax nit ñi dafa am lu mu leen di ñëwee bari na fi du fi jeex. est-ce que Cheikh Talla. macha allah <laughs> jërëjëf Serigne Cissé moom Serigne Babacar euh, su ma ko toppee rek fi mu ne xam naa ne fi ne fa ñuy mujj moom day daal mujj a xoromu lool rek ndax mhm. dañuy namante nag wax dëgg yàlla ndax danoo danoo am lunu lunu lu nu bokk dundandoo mhm. wallaahi azim te lépp itam di dëgg ndax ci dëgg lañ ko doon def mhm. ca fañ ko doon defee itam képp lañ ci doon jublu muy baat bi mu wax sànq dama ko mas na ko li ngay yëngu ni mu ne ah, ma ne ko dimbali ci jaamu yàlla jaamu ci yàlla ndax jaamu yàlla ci biir jaamam ñi te ni nga ko waxee ñu fekke ay nit yoo xam ne bi ñu ñëwee xëy na ñun ci ñun lañ jaar ñu def intervention woo la ne def ci nangam ak nangam kon loolu mhm. itam te ñooñu dañoo ëlbatikuwaat woote waat sant mhm. ndax mënuñu woon la sax jot mais man lañ doon jotaat après mhm. parce que ñeen kenn daaw leen mën a jot ci lu bari waaye ñun nga xam ñoo doon doon intermédiaire seen diggante parce que fii bërëb bi mu nekkoon moo ko laajoon am nañ ci ay confirmation du benn du ñaar du ñett mhm. loo xam ne dañ ko fekkee mhm. ba ci ndeysaan sama doomu bàyyi ba te mujjoon a nekk ca boora euh, Kédougou ak pëlie ko sànni woon korte maa dindi ba waaw kay ma nga noonu te sukk na fa tànkam ba mhm. loo xam ne juróom benn at mu di ko doxaale la ko ca yàlla dem ba korte bi mujj gi wal biir bi jëmm ji weex tàll mu ñëw ma jox ko ñeenti nakk ko lekkee taala la woo jàppaat bés ca bërëb ba te bañ koy indi dañ ko yanu teg ko xamut fu mu kalaandoo la jëlee fa mu bayee ko ñaar ñaar yeeg si biñ ko yee ñëpp a tiit jóge waaye yàlla mi dara teewul alxuraan kenn du moom mm-hmm. boo ko xamul yeggal ci xawuma ko rek mm-hmm. waaye efficace yow moom yaa efficace macha allah waaye Cheikh Tall mi xam ne ak yeneen ak yeneen ak yeneen mm-hmm. yoo xam ne lépp ci xewam la xewee loolu rek émission la loolu buñ ko topp waaye loolu ñorul ñi maanaam luy résultat yi ñuy def ñorul ñu waaye bëgg a waxee ne yëf yi dañ koo teg ci ñun jàng nañ donn nañ nit yàlla dimbale nañu muy borom daara kon yëf yi day gën a yomb waaw te lépp suñu borom la sax fi mu ne maanaam mooy ñu koy waxee boobu ba léegi rek mhm. léegi bokk na ci rek xanaa fi ma bëgg ñu jeexalee fa Serigne Cissé mhm. bokk na ci jamono ji coowal coowal Serigne Daara mhm. bëri na ci réew mi yaa ngi koy dégg Serigne Daara yi yi def naka suñ maanaam dus dus naa ñooy caaxaan kat lañu waaw di tëddee ndongo yi loolu caaxaan kat lañu dama wax barki démb ci benn télé bu ñu ma invité pour loola ma ne leen diis ngeen kooka. Mm-hmm. du nitug daara caaxaankat la. Mm-hmm. ki nga xam ne dañ ne la yaa fi taxawal diina ñu yëkkati doom jox la ne defal ci moom diina. Mm-hmm. ngay def leneen lu neexul yàlla. yow la nga la ngay woote du dëgg. damay faral di wax ne lu waay di woote te muy dëgg boo ko gisee xam ne dëgg la. waaye lu waat waay di woote am leneen loo ca rax yow loola nga ne. nekkoo ca la nga wax ne moom nga. ñeen ñi nag dañuy indi saboté ngir daara. te daara jii ñuy saboté ñam ña koy ñoom ña fay wax wax yooyu yëpp ku ci jaaxle ca daara ja nga jëm kon ñooñu sëñ taala ci caaxaan lañ ne ay ustaas ñu naan tëddee na diw def na nii diw ne maay ustaas bi bul tuddee sa bopp ustaas yow am muus nga nañ ba yàq bi baaxu sëñ taala macha allah bokk na ci pays fi ni ko waxee fan yi fi ne balaa bi nga xam ne xew na ci Chine daanaka ak tàmbalee sëñ taala mm. yàlla nu jéppi nañ ma baal nag ci kàddu gi sëñ Talla dégg nga fi choléra dégg nga fi daaw ñu fi waxati beneen feebar waxal feebar bi Afrique boobu nu mu tuddati sax Ebola mhm. yenn xeetu tur yoo xam ne doo xam ay turu jinne la doo xam ay tur yoo xam ne buñ ko tuddee sax yow wax ko doo ko man waaye fii ne daa mel ni coronavirus daa am beneen bu xew ne corona vent bi xew. virus ci téléphone yi nga ko daan dégg ak machine yi. Mhm. ñu dem ba fi mu toll mu ne sarax ci jëmmi doomi aadama yi. est-ce que ñun lanu waroon fi mu toll. Mhm. ñu taxaw seetlu ne ñun qu'est-ce qu'il lu xew. Mhm. rawatina tey ñu xëy fii ci Ndakaaru kenn mantu gis kenn. gars yi tuddee ko corona corona. <laughs> man kay tey nee naa ko Samba mu ne naa ma ne ko lii bu génnee ci journal da nga dégg ñu ne feebar ba ñu doon tudd Italie ca Sapone ya dugg na Sénégal. ëpp naa def sëñ bi loolu moom. ndax ni ndax niñ niñ niñ bindoote ndax waa réew moom dal loolu lañ def di. Mhm. seen bakkan la ñu taf def seen i masque Sénégal tey masque la ñu xëyee sëñ nañ fexe bëggante te soppante. Mhm. te yéene wante jàmm. Mhm. buñ ko defee yii dégg rek lañ cee am. gis nga rew siin waye le manna na gune rey junneey doomi adam waye bu duggal Sénégal du fi re kenn yalla bu fi dugg ci barke sëñ babakar waye ñun sénégalais kañaan moo tax lu ñëw danañu dal hmm. soxor sis kenn bëggul lu sa morom jamm moy wara a rek suñu borom jël benn mbir rek tëmbal ñuko hmm. ñun ñëpp ñu ci waye yeen xéet yi ngay gis hmm. muy wacc ci jamono ji ku tiitu doon war ngaa tiit ndax axiru samaan si sëriñ ba sëñ Bàmba nee na bu nee ba jamono lépp loo xam ne bu ko waayam gisaan tiit hmm. ku ko gis taxaw hmm. ñu ngi ca mujj ga te jamono ji ñu nga foofu nag Seex Taala te jamono ji kenn ku ne war ngaa def seetantal ci sa bopp hmm. te gën a provoqué sa bopp waaye première ci ki nga xam ne musiba yi wàcc ci jamono bëgg nga bu ñëwee nga mucc si da taxoo njàpp ak laab set boo ko defee lu mën a wàcc nii ak nii mm-hmm. waaye nag fi jamono toll ku bëgg mucc ci yi xew fexe lii ma wax la nga tëqoo ko rek macha allah yaay toog di bokk ca ñay nettali mm-hmm. waaye yii di xew ni ay choléra ak ay yeneen xeetu feebar yi ñuy teg mm-hmm. doo xam ay turu jinne la doo xam turu lan la nañ moytandi ko tey seet la sa dañu fi daje woon ci nga invité woon bu mu la seetsee doyloo woon la yaakaaroon la ci combat bu mu amoon yàlla defal na bi combat bi tam duré na yéex na yàgg na. Mhm. waaye yàlla mujj na ko cee may ndam noo dundee. sëñ mm. ku ma sa tur mi ci réew mi. Mm. say mbokk ci yow. boobaak léegi ñëwaat na fi. du fi da jóg. non ñëw comme ni fi ñëw bopp ñu fi daje woon quoi fii lay waxtaanee <laughs> sëñ Talla ku ma sa tur say mbokk tiit. du ko tiitaroo waaye sunu borom dimbalee na ma ci sama làmmañ wii. Mm. lu ma ci noddu. say bokku ci ak ko mën a doon nag. doo suñu bos. seen falaas kay. Ah, seen falaas moom seen sama sama falaas la. falaas la. <laughs> seen falaas falaas. day dem rek. allah kulli allah. incha allah rabbi kon li mën a am. Mhm. mooy ne sëñ taala. Mhm. ñun gëm nañ ne suñu borom defal nañu ijaaba. te mooy li sëriñ war a sàkku. Mhm. ijaaba mooy ne sëñ taala tey bu la waxoon ne. sama papier bi nangam. Mhm. nga am loo sikar ci latif kayit ga sotti. Mhm. sëñ taala na la xaalis laa bëgg. Mhm. nga am loo siikar ci latif sëñ taala am xaalis am ubbeeku. waaye sëñ bi nga war a def nag. sëñ taala wéer la bëgg nga am loo siikar. non sëñ bi Ndiaye ko bëgg fi mu toll. tabaarkàlla. borom yéen wér ngeen di am ak jàmm. may seen xarit. te ko am kuddu doo lakk. wallaay ndeysaan. ban. xanaa kàddu yu mujj yi rek ci jotaay di biggee sénégalais yëpp ndeysaan sunu waxtaan nag day xorom waaye xorom nga lépp njëriñ la wala ndeysaan ndax nii la ma yàlla def mhm. ñoo ngi béggee mbooleemi sénégalais rawatina diaspora bi biir réew biti réew ñeem mhm. ñëpp Cheikh Mouhamadou Bari si Cheikh Talla mhm. sama ñaar ñii yàlla na yàlla yokk seen i jàmm ak seen i xéwal ak seen i tiraanga ak seen i maxaama ak seen i daraja amiin yaa rabbal alamin yàlla am na ko sañ na ko mën na ko te lim yor jaam ñi rek ko tax a jóg yàlla maa ngi lay ñaan jàmbaar daw dafa daani doole mbooleem ku nekk si diaspora bi la mu yittewoo yaa nu ko gën a xam nu ko ko ak ñi nekk ci biti réew di safoo sëriñ si demo sëriñ Babacar mm. di yëkkati teraanga 24 heures di ko jox yàlla noo ngi ñaan ñoom ñooñu yàlla nga guddal seeni fan wéral seeni cër ñi caabi féetee ginnaaw yàlla yàlla génnee ñëpp ñi ci laali hôpital yi yàlla yàlla wéral ñëpp mm. ñi bëgg jëkkër yàlla nu am jëkkër ñi bëgg jabar yàlla na nu am jabar mm-hmm. ñi bëgg doom yàlla na am doom mel na ni ñaanal naa ñëpp de yàlla na yàlla am defal ñëpp jaam waaqi dowaana xanil hamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum jërë ngeen def jërëjëf Serigne Cissé moom Serigne Babacar macha allah ci waxtaan wi neex na lool macha allah wax dëgg yàlla ni nga ko waxee rek day niru xoromu waaye njëriñ képp la làmboo ndax liñ fi waxtaanee lépp macha allah rabbi ñoo ko bokk déggandoo sant ko gërëm ko a baax a dëgëral guddal fanam gën a wéral tam ay cëram ba li naa naalal réew mi tam sama borom defal ko ci lu kawe njottam ci darajey Seydi Aboubacar mi nga xam ne mooy soppeem ba di yaakaaram ba di mhm. débarrassement direct am macha allah rabbi a baax suñu mbokk internet yi ñoom ñi nga bi nga ni mooy faj sa jàngoro à travers www.senflash.com ñaanal leen kenn ku ci ne bëggam ak mébétam ak yéenam yàlla na jàppandal lépp ni ko Serigne Cissé mu Serigne Babacar waxee jox leen daje incha allahu rabbi ci beneen numéro ak faj sa jàngoro ci biir senflash.com jërë ngeen jëf wa salaam